xam sa démb xam sa xam sa démb xam production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix. xam sa démb xam sa tey di waxtaanee jigéen ju màgg di waxtaanee koo xam ne turam tey dañ koy méngalee ak daara joo xam ne fa la ñuy tàggatee jigéen ñi ñu tànn. ñu doon ay tuut tànk yu nu am yaakaar ci ñoom ki ñuy waxtaanee tey di bindkat bu mag ki ñuy waxtaanee tey di jàngalekat bu mag ki ñuy waxtaanee tey di ku yóbbu turu Sénégal fu Sénégal mënul woon a yóbbu boppam ci jëmm ki ñuy waxtaanee tey mooy Mariama Ba soxna su mag soosu nga xam ne mi ngi gane si woon àdduna fukki fan ak juróom-ñaar ci awril ci atum 1929 ci Ndakaaru Njaay baayam nag di way juróom wu góor Amadou Ba tuddoon Amadou Ba mooma doon fonctionnaire boo xam ne jamono bi fi tubaab bi ne liggéeyoon na ba ami sa di liggéey ci nguur gi nanu fàttale ne fa mu doon liggéeyee mi ngi tuddoon cadre général des trésoreries nga xam ne lépp luy xaalis buy dugg ak a génn te nguur gi yor ko foofa lay jaar liñ ñu mën a jàpp nag mooy waaye juróom wu góor woowu Amadou Ba nekkoon na ku doon yëngu ci politique te amoon ci solo loolu sax a taxoon mu doonoon ki topp ci meeru Dakar Lamine Gueye ci atum 1947 ñu war a jàppit ne Amadou Ba mooma defoon nañ ko ministre de la santé et de la production mu yor lépp luy wérgu yaram mu nekkoon nag ci gouvernement bi Sénégal njëkk a am 1957 ginnaaw bi nga xamee ne teg nañ yoon woowu ñu tudde woon ko loi cadre kon Mariama Ba dafa judd fekk baayam am solo baayam nag am solo te bokk ci ñuy dogal ci réew mi Mariama Ba nag ñeenti at rek la am ndeyam Fatou Kiné Gaye génn àdduna kon mën nañ ne maama ma ko yar maamam jooju ko yar nag moo ko yóbbu ndar yar ko ci aada ak cosaan bëggoon mu doon jigéen ju réerut baayam ne faaw mu dem jàngi lekkoolu tubaab looloo tax Mariama Ba bu ñuy seet sax mi ngi dugg lekkool ca Ndar duggee ko ca lekkool bi nga xam ne ay jigéen rek a fa newoon foofa nag la amee diplôme bu njëkk muy certificat d'études primaires 1943 nag ah bi nga xamee ne war nañoo tànn xale yu jigéen yu dugg ci école njegemaar yi ci Afrique soowu jant banu nu tànnee moom moo nekk ca bopp ba raw ñëpp école booba mooy école bi nga xam ne fa la ñuy njëkk a tàggatee jàngalekat yu jigéen yuy njëkk yi nekkoon ci Afrique soow jant ci jamono bi fi tubaab bi nekkee te ñu sosoon ko ca 1938 ci tëngéej gi di Rufisque tëngéej nag buñ koy fàttali dafa bokkoon ci ñeenti communes yi nga xam ne dañoo amoon dayoo bi réew tubaab yi joxoon communes ya ne biir France muy dakaar Ndar ak gore xam sa démb xam sa tey dañu fàttali ne Mariama Ba ki nga xam ne moo njëkk a nekk kilifa gu jigéen gu ko jiite muy directrice am mu doon tubaab bu tuddoon Germaine Le Goff mi nga xam ne ginnaaw bi mu nekk woon jàngalekat bu mag ca France dañ ko yóbbu woon Jéene fële Jéene nag mooy Mali ren gii te boobu Soudan français la tuddoon ba mu jógee foofa ñu indi ko lycée Faidherbe bu Ndar mu jógee fa ñu indi ko petit lycée bu Ndakaaru Njaay nanu jàpp nag ne Mariama Ba mooma jàmbaar ju mag jooju jigéen ji ci nettali bu rafet bi Mariama Ba mi ngi génn ak diplôme ca école bu mag booba doon tàggat xale yu jigéen yi ci 1947 Mariama Ba mooma jàngale na fukki at ak ñaar ca école bee tudd Faidherbe nekk ca quartier Médina ca Ndakaaru Njaay ginnaaw gi bi wér gi yaramam neexatut ca la ñaan ne nan ko yóbbu ca inspection bi nga xam ne mooy saytu njàng mi ñu yóbbu ko fa ca atum 1959 mariama ba nag musta tànqam lu jigéen ju sonn mariama ba musta tànqam lu jigéen ju am soxla mariama ba musta muutuwaale soxlay jigéen loola moom moo tax mu bokk ci fédération bu mag booba nga xam ne kuréelu jigéen ñépp ci Sénégal ña nga ca woon muy fédération des associations féminines ci tubaab waaye nag bokkoon nit ci kuréel gi nga xam ne kuréelu xaritoo la ñu tuddee ko Amicale Germaine Le Goff te ñu sosoon ko ca 1970 te ñoo ko sosoon nag di xale yu jigéen yi nga xam ne doon nañ ay kilifa te jaaroon ca école booba te ñoom ñëpp ñu ne ci réewu Afrique yu bokkut def ko secretaire général Mariama Ba nag cercle bi nga xam ne mooy cercle féminin moom moo ko sos te moo ko jiite woon 1979 ca la bind téere bu mag ba ñu génnee ko ca nouvelle édition africaine muy nag téereem bu njëkk mu tuddee ko bii bataaxal bu gudd une si longue lettre ci tubaab waaye at mam ko génnee 1979 at ma ca topp ca Japon la am raayo bu rëy di prix Noma kon ginnaaw téere boobu ba mu génnee ba am ndam loolu at ma ca topp muy 1981 ci la Mariama ba génn adduna fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août Mariama ba kon téere fentam bi génn mu tuddee ko wii way wu yaatu di champ écarlate fekk na ko mu génn àdduna ba mu génn àdduna président bu Sénégal président Abdou Diouf kër gi nga xam ne mooy Mariama Ba te ñu fay tàggatee gone yi te muy kërug yar daa di xaatim décret tuddee ko ko 1985 ñuy fàttale ne maison d'éducation booba Mariama Ba te tey di lycée d'excellence dañuy tànn gone yi nga xam ne ginnaaw bu nu defee seen i entrée en sixième seen CM2 ñoo gën a xarañ ci jigéen ñi ngir waajal leen ci BFEM ak baccalauréat ña génn nag tey di ay kàngam yu mag ña fa génn tey di ay kilifa yu mag koo ci gis ca fa mu ne nga xam ne fa mu jaar jàmbaara fa jaar ñooña nag di gone yooya tànn bu métti lañ leen tànn ginnaaw bi nu xoolee gone yi jigéen yi ci réew mépp xam sa démb xam sa démb xam sa tey tere Mariama ba boobu ba mu génnee ba léegi ah at yi bëri nañ ah réew yi yaatu nañ waaye une si longue lettre daal moom mi ngi wéy ba léegi di am solo di am doole. te bu nu seetoo sax ndajem téere yi nga xam ne amoon nañ fële ca Zimbabwe ci atum ñaari junne ak ñaar di 2002 bi nga xamee ne dafa tànn fukki téere ak ñaar yi nga xam ne ñoo gënoon a am solo ci xarnu ñaar fukkeel bi daf ko caa boole. ana ñu mbokkal foofa mooy xanaa taalifi Senghor yi tudd œuvre poétique ana ñu mbokkal foofa xanaa mooy téere Cheikh Anta Diop bu mag bii muy wax antériorité ak civilisation des nègres mythe ou vérité historique mu ne ndax nit ñu ñuul ñu ñoo jiite ci adduna bi loola gis-gis booba ndax ay léebi kese la wala ndax dëgg la kon Mariama Ba mën nañ ne moom ak Senghor Cheikh Anta yëkkati nañ raayab Sénégal ci mbind xam sa démb xam sa tey téere boobu nag di une si longue lettre bu Mariama Ba ñuy fàttali ne ci tubaab la ko bindoon waaye kii di maam Younouss Dieng te mu génn àdduna tey yàlla na yàlla yokk leeram maam Younouss Dieng ak soxna sii di Aram Fall tey yëngatu ci mbiru lakk ñoom de tekki woon nañ ko tuddee ko bataaxal bu guddee nii mën nañoo jàpp nag ne nouvelle édition africaine moo amoon yéene booba di atum 2007 waaye une si longue lettre ba tey jeexut ndax tëggkatu clip bii di tëgg film yu mag yi Angèle Diaban te nekk Sénégal moom moomu def na ko film bu rëy rëy boo xam ne ci atum 2025 mille mii la film ba génn lu jiwu wa jeexul nag jógu fa kon Mariama Ba du génn ci xol yi ndax njabootam yar na leen ba tey kenn déggu leen ci dara njabootam yar na leen ba tey ñi ngi ci seen fula ak seen fayda ba mu génnee ba léegi deram rafet waaye ndonoom gàkkaluñ ko kon gàcce ngaalaama Mariama Ba gàcce ngaalaama aama du Ba mi waajuram wi ko yar ak maamam ja ko defar gàcce ngaalaama ndayam ja ko nampal te fekkewul dara te ndayam jooja lam ko mooy ngor Adja Fatou ñu rafetal deram ba xëccoowuñu ndono ba àdduna di leen joxoñ Mariama Ba sagu Sénégal Mariama Ba sagu Afrique bindkat bu mag bi laa doon waxtaanee tey xam sa démb di waxtaan leen Goethe Institut may ànd ci ak Archives national du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant Abou Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Institut